dañuy ubbi benn bloc opératoire ci appartement bi wut suñu ay laam ciseaux toog xaar uli mu ñëw. lan ngay loolu yëpp. da nga dof xanaa. dama bi nga doon lii yëpp yow yaa ma ko yóbbee. Ibrahima yaayam génn na kaso. da nga ne ma woon keroog Django yaayam mi ngi village. man fulla laa lay wax nga dama indil ay wax yi dàqa sa xanaa loolu di wax yi dof. sama fu mu nekk. répondre ma question. indil ma ay preuve leer. ñu wane ne sama yaay dina kenn. réduction de peine rek la ñu mën a dafa rey nit ci ay anam yu ñaaw kon lan moo tax duñ ko tëj. un an bis boo àndee kenn sa kaso xaj na ci.